waaw euh, muy alliance stratégique boo xamante ni <laughs> tout le monde sait que ñoom bu ñu àndee ak euh, toutes les forces qui sont dans la coalition Diomaye Faye koo xamante ni euh, boo demul ak leader bu bu bu sa leader joxewul moo d'ordre sax cinq cent mille voix ngay am bu yokkee ko kon nag képp ku jéem naan jàll premier tour na xam ne sénégalais duñ ko nangu et personne ne peut passer au premier tour si ce n'est la coalition Diomaye président. Mhm. lool la am lu may wax. ci premier tour bi. Euh, deuxième tour non mais parce que gis ngeen ko mais euh, yéen yéen vous êtes sur le terrain le le, le jeu est plié. Mhm. c'est-à-dire nga ñëwati indi PDS militant wam président Wade ñaan wax ne mi ngi wax militant wam yi ñi fi toog ak ñi fi toogul mhm. nañ jàppale euh, Diomaye ñu toog. joxe mot d'ordre bi ñëpp a ngi ci terrain bi di ko liggéey waa fan la keneen di jaar premier tour rek si waxtaan bi lañu mën a jàpp si loolu daal en gros loolu la je vais laisser peut-être la primeur mm. euh, à El Malick Ndiaye mm. à la coalition Diomaye de vous dire euh, le contenu de l'entretien ndax loolu ñoom laa koy bàyyee mais en gros daal damay yëgle ni tey jii force yi nekk en présence il est impossible pour qu'un quelconque parti wala un quelconque politicien taxaw ci biir réew mi naan euh, euh, di frauder élection wala di ñu wax ay waxu 53 pour cent wala gagné nañ premier tour ku ko jéem ah coxaa kenn du nangu la confiscation du vote populaire ça c'est impossible non non dem eh, ànd na ak ki kii mais boo leen ko contacter il pourra vous faire le compte rendu ñoom il vous dire ce qui est approprié lan la ñu waxtaane ndax am na yoo xam ne biir la doom ak sët ay sët ak kii munu man du man maa ko war a wax mais li ma mën a wax daal mooy PDS dolli siku na si coalition Diomaye Faye Ablaye Wade ñaan na ndax mag nag <laughs> am na am lu mu lu mu lu mu am te boobu ba léegi Maguette si ñoo ànd moo amee euh, les comité électoraux démb ba tey nelawuñu ndax mi ngi joxe moo dox comité électoraux yi Ross Béthio tey sànq rek lañ doon waxal pour ñu jug taxaw pour surveiller vote bi ak mobiliser les militants au niveau des des zones rurales pour ñu génn dem euh, voter pour pour mot d'ordre bi wàcc ba ci militants yi donc moon même man personnellement depuis euh, démb gisu leen ma ci meeting bi parce que j'ai un travail de communication interne que je devais faire qui consistait à faire descendre euh, le mot d'ordre du président Wade euh, et de, du président Karim Wade à la base maanaam zone yi gën a éloigné fale ñu jot note bi même bu fekkee nekkuñu ci internet wala dala fale ñu jot la not du président te man nag fi Diallo chargé de communication du du PDS may profité fii pour wax y a pas eu de comité directeur mm. c'est faux c'est archi faux bu amee nañ ñu wax fan la kan la ak ñan ñoo fa nekkoon mm-hmm. may wax nag ni man soldat wu Ablaye Wade la mm-hmm. moom bu waxul woo lu mu wax loolu la ñuy doxal mm-hmm. te nag moo ni nañ jàppale Diomaye Faye waaw loolu nag ah, nañ lañ ba suba suba bu ñu gagné ñun ñuy ñuy rek di ngeen ko fi gis xëy na gannaaw suba. merci beaucoup merci beaucoup donc mu nekkoon honorable Nafissatou Diallo donc Dieye dañuy xaarandi as tuut rek parce que damay wax ne y a une information bi a xam man maa ngi koy wax sànq hmm. euh, mu ngi biir hmm. am na li nga xam ne war nañu ko a wax donc dañuy jël moom tamit mu woon si biir honorable moom tamit mu wax ñu donc moo tax ñu ne tey nous avons la primeur de l'information donc nous allons pas dañu euh, ko salaamaaleykum waaw ah ñu ngi ñu ngi lay directeur Sénégal 7. non booy euh, assuré non non non non non. donc ñu koy xaar loolu la ñu xaar donc nañ xaar nañ taxaw nii euh, nañ taxaw nii xaar euh, dañu wax ne c'est important par rapport ak li nga xam ne moom mooy wàllu réew mi ak yu ni mel donc ma jaw maa ngi koy wax ah, la primeur de l' information par rapport ak li nga xam ne moom moo wundu yëf yi waxtaan bi lan la parce que dañuy wax ne sénégalais yi bëgg nañu ko xam euh, am na ñum jaaxal am na ñoo xam ne jaaxul leen une nga xam ne mooy euh, sànq euh, en 2000 li nga xam ne mooy 14 Ousmane Sonko wàllu partem bi wala nga koy daal di rajo si fonction publique bi na dem ne mooy parti PDS mu dem waxtaan ak moom ba tey mu am candidat bu mu joxoon mu jëmee fay ba tey nga gis ne moom ki nga xam ne moom mooy euh, Ousmane Sonko yebal problème di nga xam ne mooy Diomaye Faye mu ñëw euh, waxtaan ak ki nga xam ne moom mooy moom mooy euh, maître Abdoulaye Wade mu doon une tête à tête entre un ancien un homme politique ak nga xam ne mu ngi doog door si si li nga xam ne moom mooy mbir yi. waaw xam nga Matar président Abdoulaye Wade day koo xamante ni comme ni ñu ko waxee yàgg na ci politique. Mm. koo xamante ni dafa dafa def opposition. Euh, dafa opposé 26 euh, ans gouverné 12 ans donc kooku kenn du ko jàngal politique donc am na lecture bu baax ci politique fépp foo xamante ne fa lay jubale ñi nga xamante ne ñooy ay ay militant da koy xam et puis day am nu ko lal mm. da lay leer ni waxtaan moom mënta ñàkk am na waxtaan day am te waxtaan bi nga xamante ne mooy am Ablaye Wade dafa yor ay nit yoo xamante ne dañu nekk ci gannaawam mm. et puis PDS di parti boo xamante ne bëggulu mu seey comme yeneen parti ko fi jiitu mm. wala boog parti mu nekkoo looloon euh, di kii comme nga tey nga ni PS tey PS boo ko tuddee parti la boo xamante ne déggatoo benn mbiram xam nga jàpp na ni PDS euh, parti la bu seey ci biir euh, am na sax ñu naan seey na ci biir Benno donc par exemple la day bañ loolu li muy def mooy képp koo xamante ni da lay soutenir wala képp koo xamante ni dafa fas yéene ànd ak yow muy mu mu waxtaan am ci diggante ma ëllëgu PDS ah ak PDS à la couleur leader da koy am. waaw ah, ba léegi Karim mooy seen leader. donc seen leader boobu di Karim Wade donc saa su ne nu koy rëkkale ci ay élections muy 2019 ba ci élection yi donc bu fekkente ne par exemple lay Wade da ci yëy yàbbi euh, il faut waxtaan day am donc condition mënul am ci waxtaan bi il faut mu am donc il faut mu teg li nga xamante ni moom mooy ëllëgu PDS njariñam ak euh, lan la euh, PDS di am ci gannaaw lii lépp bu fekkente ni jàll na ba Diomaye gagné élection yi. yooyu yëpp par exemple ay da koy teg ay détails la donc il faut nga xam ni waxtaan mënut a ñàkk moo am donc waaw lu ci mën am rek incha allah xëy na dinañ ko xam euh, xëy na bañ nañu euh, révéler li nga xamante ni waxtaan nañ ko ci biir waaye incha ñoom El Malick Ndiaye comme mooy porte parole bi dina génn dina ko wax sénégalais dinañ ko xam Matar. donc El Malick ñi ngi xaar mu def communiqué euh, suñ ko mënoon woo sax mu mu leeral ni balaa ñuy génn fi ni mel parce que dañuy wax ne ñun jamono ji la primeur de l' information c' est c' est pour les sénégalais sénégalais yi moo tax ñuy def li ni mel parce que dañuy wax ne élection présidentielle également lépp daa war a leer ëllëg euh, réew mi euh, sénégalais gis seen bopp si li nga xam ne moom mooy moom mooy yëf yi parce que maa ngi koy wax sànq di ko bantuwaat les relations diplomatiques entre le Sénégal et la Qatar les relations diplomatiques entre le Sénégal ak ñi nga xam ne moom mooy la France lan moo ko wundu tey waxtaan bi wala li nga xam ne mooy lenge yi dañuy wax ne njiitu réew ba woon nar a toog ak xam ne moom ñeneen ñeneen ñi jàpp nañ ne moom war na mun a mat njiitu réew wala bokk na si candidat yi nga xam ne parmi les 19 candidats yi nga xam ne war nañ mën a bokk si suñu jël réew mi ak meeting am bi nga xam ne gis ngeen ko démb fële ah, ginnaaw Mayoro bu bu nga xam ne moom mu ngi bokk si si PDS yëkkati kàddoom donc loolu dafa am solo donc Dieng dañuy waxtaan bi rek